hello mes bébés bon bon vendredi yaay euh, ñu ubbee Marichou mu def robom bu bleu posté ko snap ak Instagram magnifique Mariam Diallo ngi nii moom tamit bii la souhaité bon vendredi dalanda à côté euh, Betty Poté Marichou aussi lii la dugal souhaité nit yi bon vendredi Khadija Sow la belle mooy ren Instagram moom aussi toujours aussi belle Adjouza aussi bii la ubbee tey souhaité ko internet yi bon vendredi comme euh, Abiba aussi noonu la def tay baasam la ñu koy wax neen na coy bii la def aussi Ndeye Ndiaye Mbecteel Ada Bellefleur euh, influenceuse Snapchat euh, très célèbre puis j'ai aussi euh, mooy Eva ok suñu maman Ndeye la bon vendredi